benn jour xam nga lu ma dal suma buntu kër laa toog fii Pape Malick Sy Serigne Pape Malick Sy ñëw fekk ma ma toog mu gaare oto bi euh, kii bi wàcc euh, chauffeur bi wàcc ñëw ne ma sëñ bi kaay wuyu maa ngi toog ak Alioune Badara mi ngi ci yéen mhm. ma gis vertante yi ma ne ko ma ne Alioune Badara jëlal numéro waa ji ndax vertente la jëlal numéro waaj mhm. mu xol mu mané a ko jëlal numéro bi ñew ba ci mom mhm. ñew ba ci ba jup ko hmm waccé bi mhm. ma rof sama loxo mu sedd may sogu waccé suma bop hmm waaw señ bi da nga def mu dama sama xam nga man yow man dama la naw dama la bëgg man sama xol nañu takko xarit waay japp ma te yalla tax te xawmako hmm xawma ne ki Pape Malick lu lay wone modeste mu baye baye dem baye ba dem auto bi di tal baye dem mu jox carte visite kooku suma amul won eh, loolu tay bu ma won courage sax tay ci ci théâtre war na am courage boobu parce que Pape Malick c'est pas n'importe qui suma ministre ministre de la culture Modou Bousso Leye daf ma gis may ñew à 100 mètres mu may gis man gisumako billaahi wallaahi talaahi mu taxaw di ma xaar. Mm-hmm. di ma xaar maa ngi yore xaal nekk ci naaj bu tàng bi ñu invité ma añ suma kër jabar ma yore xaal bi. Mm-hmm. yore xaal bi ñëw ba ci moom signalé ko mu signalé ma xaw ma kan la. Mm-hmm. ma signalé ko loxo rek rek mu muy wàcc ma xool muy Modou Bousso ma ne ko eh, monsieur le ministre. mu ne ma yow lii rek yow ma ne ko yow mu ne ma yow lii laa koy yow laay defal lii. ndax artiste. ken amul payam te bay seen ministre warna naa mun a wàcc ah, sargal la ñepp dañuy taxaw di ma xaar de mais ñun man damay taxaw di leen xaar yeen mo dugg soleil mu wax ma lool sista gis nga biñu euh, biñu bi mu ne mais fo jëm ni ci naaj bu tang bi ha ah, man ko suma kër jabar la jëm dañ ma invité añ agne su suma démé comme xaal bari na mu jënd xaal njëgu xaal laa am ma sagu ci xal ma sagu bok mu ne ma tay ngay sagu tay ngay sagu mané ko sagu ci lan mu ne ma tay ngay sagu dor ma peul yu bari ra foket la ma jox si stabilaat la ra foket jox ma ma dem kër ga tok rek gis télé bi di xawa di xawa signalé rek di rek boy ma dem jëndi télé dugal kon nga aar bi man am na ñoo xam ne nag xamee nañ ñu ci ràññee nañ ñu ci buñ ñu woowee ñu ñëw mais buñ ñu woowul du ñu ñëw saab du fóot boppam waaye xam ne njëriñam ndax am nay fulay toog butik ba ñu jënd si ko kaa bi aar bi dundalu leen waaw man day dundal na ma ndax xamee nga ma ci ràññee ma ci man xamee nga ma ci ràññee ma gis nga ku ma ci xamee ràññee ma ci

parce que man duma toll fi ma toll ba pare yow mu jaral la nga jël sa caméra jël si yëpp tay bo amone milliard tay ni ko jaaga waxe tay bo amone milliard tay dimbali ma jàppale wala mais lay nga bëgg man ma taxaw naan dimbali len ma ki du ko def gor la ko ñëpp ah am ngoru lima yalla jox ma jël ko lima doomu adama nara jox ah bëgg bëgg ma vivre à genoux di ramal raamal du ko def

lan laa la ci Modou bu Leye ah ak keneen ak keneen walla lan laa la ci wax kon loolu man am naa wala aw waxal waay waxal tontu am nga ah, naa wala aw ma ah? am nga kon nag ñeme naa taxaw naan ay aw ma ah, ku ci ñàkk sa affaire man am naa lépp ndax am naa yàlla te yàlla fexe na ba ñu xàmmee ma ràññee ma gis nga ñun ñi ñu war a dimbali wax na dëkk ñoo ñoo ñu nangul dimbali ñooñu nangul def alal ci ñun ñeneen yeneen dëkki yi Richard yi dañuy jël seen alal def ko ci artiste bi moo tax dañuy dem kaw rek ñun tu préfères que woo ñu reetaan ah reetaan jox ñu miet moo gën mm. mais xàmmee nga ñu ràññee nga ñu mm-hmm. ba nga amul woon dara ñoo laa daan bégal kon boo amee war ngaa mën a gore delloo ñu ko mm-hmm. waaye nag du ñu di tendre mais di ñaan wala mm-hmm. cas bi loolu mm-hmm. nit yi bu ñu nangu woon tey financé ñu def def la ca war ah ñëpp laa wax amul ma sàmba amul ma demb ku ci am ku ak ku ci am tur ku boo jàppee ah ne war nga ñu mun a dimbali pour Sénégal jëm kanam ñi sacrifier nañ seen vie yëpp ci lii ah. nañ leen dimbali pour tamit ah Sénégal jëm kanam mm-hmm. ah fa li xam ñuy sant yàlla mais yow xam nga ni yow ñun mm-hmm. lu ñuy sacrifié wu keneen bu ko sacrifié woon kon Sénégal dem mm-hmm. borom alal yi bu ko sacrifié woon si ñun kon ñu dem ah mais nag nit ki mënul joxe lu dul boppam suñu bopp nag la ñu mën a joxe suñu bopp yéen xam ngeen ne joxe nañ ko bu mu jeex tàkk ah loo am quarante ans ah ay ñoom jaag ay Lamine jaay ay ñeneen 50 ans man quarante ans xaw ma 38 ans ma am ko ci ah su ma taxawee di ko xeeb vraiment wala ki ma koy xeeble du ma ko nangu ah. mais nag cere diw yàqu ko ah. cere diw du ko yàq mooy ñeex mi. du ko yàq ñeex lañu manqué ah ñeex mi borom mi borom milliards yeeg borom millions yi nañ ko def si ñu ñu koy defee feneen ak feneen. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.